فجأني بما به فجاناك باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجاناك باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا قولي قول يحجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القحار من لبانا كوني له حمدي بما استبانا الحمد لله الذي أحتانا الحلم والحمل والأوطانا له شكري وكفى الشيطانا كفاية الباقين ما أعطانا حمدت حمد الحامدين لنا بالقلب قالق الورى مولانا محى الفرا والذحذح الفتانا وذكره الحكيم قد آتانا دعوته وقبل لي ألانا قلب الذي حسدني فلانا لؤ خطابي ورمشاناك وذان لي عند الوداع ما شاناك لك وجهنا أعطيتني الذي محل أدرانا بشرت بالأوطان والأقرانا لي وأبت البشر والجيرانا كفيتني قوما حووا قصرانا لي تصفي الأمر والجنانا تأبني بلا حنى الجنانا زللت من في البحر قد حادانا والبر يا من بالنبي أدانا يشكرك اللهم يا من دانا كل به وبالنبي مزدانا نفيت أني قبل قتلا قانا وسيلاقي الوقت ودقانا جذت البحور رضني ممانا بالمنتقى أتبت للزمانا جزاء ربي راض لسلطانا مع الأمين والمنى أحتانا أشكره ولم يزل ديانا شكر الذين شاهدوا حيانا ناديته وبالمنى فجانا وبالنبي أن نستنيم مزجانا الحمد لله الذي هدانا لذا وبالأمين قد فدانا محمد وحبل القرآن شكري إلهي علي أنا نفى شكوكي قادني تبيانا وزادني اليقين والبيانا أمنني وحبني الإسكانا وطيب الفؤاد والمكانا assalaamu alaykum wa taala wa mbokki jullit mbokki taalibe yi ñu ngi leen di siyaare te di leen jox seen wàccuwaay di jiital ci siyaar bi ak suñ borom yàggal ko fi tam ànd ak wér barke Cheikhul Khadim ba naalim naala Serigne Touba yëpp mu matal ko barke Cheikhul Khadim di ci tegit euh, xalif général des Baye Fall suñ borom yàggal ko fi tam ànd ak wér di ci teg nuyoo bi soxna Maama Mbacke moom Serigne Fallou ñoo ngi fii ci kër soxna Maama Mbacke moom Serigne Fallou nekk ci wàccaayu liggéey yu nekk ci waañ bi ñu ànd kook suñ mbokk taalibe yi ngeen di seen suñ gannaaw te mm, jëwriñ ji di jëwriñ Cheikhouna Gaye ñu leen ci ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay xanaa di ci tuubaat bu baax a baax ci kàddu yi ñu yëkkati ndax warul ndax suñu jëwriñ yi dañ fee nekk waaye di santaat yàlla ci bañ ñu joxe ndigal li ngir ñu wax ci seen kàddu mu mel ne li sëñ bi santaane woon liggéey bi rek noonu rek ci lañ ci nekkee ci ci wàllum njàngum alxuraan ak njàngum xasida bu loolu weesoo it ñu jublu ci wàllum bernde yi bernde yi nag ci lañ nekk nii bañ xëyee ñu ngi woon ci ndekki yi fi mu toll nii nii tembee ñi ngi ci añ yi te daanaka noppi na buñ noppi rek dañuy jublu ci reer yi waaye lépp it ñu di ko def ci ndigalul soxna Maama Mbacke moom Serigne Fallou di ko ñaanal mu yàgg fi lool lool lool te ak wér tey ñaanit màggalu ren gi li ci ci sàkku yëpp yàlla nañ ci tase ngërëmal Serigne Touba. barke Cheikhul Khadim loolu daal xam naa ne lañ ci bëggoon a tàbbee rek ci kàddu soxna si ay ndigal soxna si te xam ne moom daal ci fu mu mënti nekk ci liggéey Serigne Touba képp la nekk ak ci ndigalu Serigne Touba yi ci la ñu nargan ci la ñu nekk ñun ñii te fas yéene wuñ cee jokk ba baa ñuy fekk Serigne Touba te yàlla na kon nag ñu leen di santaat bu baax te di leen gërëm surtout yéen waa site bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax ci barke di ñaan ci barke màggal gi yàlla na site bi raw ci site yëpp ba fu fépp fu ngeen ko bëgg a yóbbu geen àggale ko fa ci barke Cheikhul Khadim ak tam may leen fan wu gudd ak wér gu yaram barke Serigne Touba te ngeen tasal cee ngërëmal Serigne Touba ñu ngi jégaluwaat bu baax a baax a baax ci kàddu yi. صلى عليه شهدني ربي بأني عبد له قديم لنبي ويبدو حدم بنيته على يلاح يقضي الذين ذحن الإله دون مكاتب العبادات محا تغربي كل المذا يا جمحا وجه الذي يحبني يبيض يوم وجوه السعادة تبيض أجر الذي نازعني ولم يتب شقاوة تدوم في أم الكتب لي بان أن المنتقى وسيلتي صلى عليه واحب وسيلتي السلام عليكم fii kër Soxna Maam Mbacke Falilou kenn si njabootu di kenn si njaboot sëñ Fallou Mbacke di caatu sëñ Fallou ñu ngi fii si këram fii si Touba Mosquée ànd koog daayaram yi nga xam ne ñoom lañ ànd liggéey sëñ Touba mooy daara mañ mu xun noo lay ni féete Dakar ak port ak mboolem Sénégal rawet na Kaolack ak si mi ak si international bi France Italie Allemagne fépp ñëpp ànd ak moom si màggal gi muy loolu ndigal loo xam ne ndigal lu bu mu fas yéene ànd ak mbokk taalibeem ndigal Sëñ Tuubaa boo xam ne moo woote màggal gi ñu santal ko boromam moom mi nag loolu la woote si anam gu sell guñ tàmbalee démb ba tey fas yéene ko ni ko ay waajuram daan defee ñëw fu mu fas ko defee di defee ko noonu si si anam gu gën a sellee ànd koog ak njabootam sëñ Fallou mu ngi fi moom sëñ Amza di di di njabootam soxna soxna Bali mu ngi fi soxna maam xale yi nii toog si wetam. moo tam ànd ak moom wéttalu ko si liggéey bi muy liggéey boo xam liggéey bu sel la bu ñu xëyee nag wàcce nañ kaamil ni ni nga ko defee at bu nekk jaa jàngi xasaayit ni nga ko defee at bu nekk di benn gan yi fexe ba gan gu fi néew sa xol féex sa sa xel dal ni ko suñu caa bëggee fexe ko jëfe noonu moom mi nag léppam lu mu am def na ko si bis bi ànd koog taalibe mi nga xam ni bëgguñu ko du moom gëm ñu ko du moom tam ngir lan jëmmi suñu bi nga xam ne moom dong leewal wanewul jëmam ji waaye jëmmi suñu Tuubaa dong dong la wane ndax bëgg maam bi bëgg maam tedd googu moo waral lépp si àdduna teg suuf yi wane suñu Tuubaa képp kon nag yéen ñi nga xam ne yéen waa Assalaamy TV ñëw fii def reportage bi maanaam def ngeen ko fi nga ko defee waaye ñaan seen télé bi maanaam àgg fi àgg fi ngeen bëgg bakk Cheikh Amadou Fadal ñoo ngi ñoo ngi koy ñaanal moom mi nag mu yàgg fi lool te wér te yàgg jiite mbooloo mi te yàgg fi lool bàkkab Sëñ Tuubaa mboolem nu mu naal yàlla na bàkk bàkkab Sëñ Tuubaa ñaanatim suñu jàmbaaru islaam gi di Sëñ Muntaxa di sagu islam ñaan sa borom guddoo fanam te wéral ko di ko ñaanal tamit Abu Baraka mi fii xalifa Sëñ moo tamit ko sa borom guddoo fanam lool bàkk mi Cheikh Mouhamed fi kulli sahrin wa fi